waa man ak moom problème mu téléphone moo ñuy boole neuf mois la ñu sëyagum nii mhm. léegi à chaque fois sama téléphone bi bu sonewee day wax ma ne ko man téléphone bi da ngay mën a am confiance ci man soo amul confiance ci man téléphone bi sëyut ak yow ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba ñu am problème ma dem sama kër papa mhm. mu woo mboqam yi mu ne daf ma may sama baat waaw man ak moom dañoo am papier de mariage. xanaa moom moom lan moo tax mu ciblé sa téléphone daf see mës a gis dara. dara man dama amoon jëkkër sama jëkkër gaañu. le 17 mars bi lay am 3 ans. waaw mu fekk ma ma toog mu takk ma. man ak moom ñi sëy 9 mois la ñu am nii. kon dafa fiir ba. waaw dafa fiir bu may dem marché sax daf may topp. yow yow xamoon nga fiir googu. loolu xaw ma ko woon ci moom ci nii laa ko xamee nii. léegi nag fan yi ma dem sama kër papa mu woo ay nijaayam ne daf ma may sama baat. ndax lan téléphone. waaw. ndax da nga bu mu laal sa waaw ma ne ko yow man sa téléphone duma ko laal yow sa téléphone day sonné man du laal sa téléphone léegi sama téléphone bàyyi ko man duma ma sëy ak yow ba pare di def lu bon ci àddina. ma ne ko lu bon loolu bu ma ko xalaatal yàlla moo ma tim ci sama bàmmeel laa toog. man ak moom ñu nekk ñu nekk ñu am problème ma dem sama kër papa mu woo ay mbokk mu ne daf ma may baat. sam papa ñëw toog mu ne ma kii de nee na daf la may baat man damaa am ak moom papier tribunal mariage. ma bàyyi ba rakku papaam yi ñëw pour ñu dem kër ga ñu jox ma samay bagage ma dem toog ci kër ga mu jël sama bagage yi teg ko ci digg néeg bi ndekete moom wut na beneen logement pour tuxu daw bu ma xam fu mu dëkk bi ma ñëwee ma ne paa yi man du ma génn dama am ak moom papier de mariage du ma génn mm-hmm. ndekete yaayam man dama feebar dañ ma war a opérer sama papier yaa ngi nii nit dangay waxal sa digganteeg yàlla moo may faj waaye fan yi dama am rendez-vous di dem hôpital su ma demee pris en yi moo ngi nii nit ku nekk da ngay wax sa àkkulaay taala analyse bi waaw analyse baa ngi nii dama ko war a def suba bii cinquante mille laa war a fay waaye dix mille laa war a joxe ndax carte bi xam nga léegi du ma jox xaalis ma ñëw fekk mu ëmb sama bagage yëpp teg yaayam ndekete da koo takkal jabar pour man ma génn ndax médecin bi daf ko ne kii mënatul am doom mënatul am doom boobu loolu moo andi problème boobu yaayam takkal ko jabar léegi ñu bugg man ma génn kër gi mu dugal jabar boobu moom médecin bi loolu la ko wax. waaw bi nee na médecin bi moo ko wax loolu ma ne ko médecin bi du yàlla bu dee loolu la fu dem. donc yàlla fu ma dem ñu ne yaayam moo ma dëddale ak moom dem ci ay sëriñ buy wax ak yaay ji day génn ci biti di nëbbatu di nëbbatu di wax ak yaay ji léegi mu topp ma fan yi ne ma bu man naa dina ma wutal néeg ma loué foofu ma jël sama bagage yi dem fa ba tribunal wooñu ma ne ko man du ma def loolu ma dem gendarmerie foire bi ma demee gendarmerie foire gendarmerie foire ne ma bul génn kër gi toogal foofu bu changé cellule yi nga ñëw wax ñu ko parce que boo demee yoon dalay perte dalay wax yow da nga abandonné bul dem fenn léegi nag ma ñëw fekk ko ndekete moom dem na wuti ji supprime néeg appartement pour dem dëkk fa pour daw man bu ma xam fan la dëkk waa yow yàq sa goro bi sama goro jotewuñu dara ndax rek problème mu doom ndax moom lu mu ko ne duma am doom yaayam an musul ànd ci sëy bi bugguma yaayam a ngi Casamance. waa hmm. su ko yaay woowee téléphone bu ma nekkee moom foofu da koy yaay mu génn dem terrasse wala mu génn ci mbedd bi dem di ko wuyu téléphone nii nii su man la ñuy xaar pour ma dem mu takkal ko jabar ji pare nañu yëpp. waaw hmm, waaw takkal ko keneen ndax man comme duma am doom doom yàlla moo ko joxe man am naa doom sama doom moo ngi judd janvier 92. am naa doom yàlla moo ma tiim du ma sëy ba pare di njaaloo xalaatuma ko ci àddina te damaa am jëkkër mu dee bàyyi ma ma toog ma sëy ak moom waa ma toog ma sëy ak moom waaye du jigéen moom mooy tax mu bëgg maa génne bu ma noonu ku ma ah, waaw loolu laa ko wax ma ni ko bu la neexee nga takk ñaareel waaye bul nekk fii di wax ay man duma am doom sa yaay moo ngi lay takkal jabar munoo nekk man nangam dugg na fee génn na fee loolu moo am metti te xaw ma nu may def waaw xaw ma nu may def nag moo tax ma ne xaaral ma ñëw fii ma laajte ku ma ci mën a dimbale nga dimbale ma ci sama yaram yaa ngi ni bu ma tëddee day mel ni danga maa yenn ay xeeru géej mënatuma nelaw dama dem analyse ma war ko def sama tension ngi 17 dafa wàcc ba ndax mënu ma lekk mënu ma damay miir xale bu góor bee moo ma jàpp sax di ba fii loolu moo ma metti